asalaamaaleykum àdduna bi yëpp Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla yi kese barke bi mal xiyaam lakbar kontaan naa ci abonnement yi kontaan naa ci j'aime yi kontaan naa ci commentaire yi kenn du yéen ci mim réew continuer di abonné di di commentaire di yéen kenn du yéen waaye nag tey bu ngeen ma gisee ni ma mel nii tey benn jàngat lañu am tey ndaw si nga xam ni moo nekk ci internet bi fañ yi nga xam ni mooy actualité bi ñi ngi koy diglu booba booba ba ba léegi ñu ngi live guddi live bëccëg bii ci guddi rek diglu na live bam live am ba mu jeex takk waaye li ma jàngat ci ay waxam lépp waxi bukki la fi wax ñu koy wax jay na ba xawma saynab ci ay waxam mu ni now fees moo ko takk alias maabo nee na moo ko takk biñ ci jàngatee nag ci biir live bi yow live bi buñ ko jàngatee ba pare yow yow sa yow yow yow yow jay na ba li ma lay wax lenn la nga ne noo fees daal di fan kut kuukut pour ñu takk la tey ñu may la tey takk la tey barke yombal xaamal akbar ngeen war a sëy tey <laughs> loolu mooy ay fen beneen bi dégg naa ci biir wax nga ni bi mu lay ñaani si laaj na la ana say mbokk fuñ nekkan <laughs> ku baax yow soxna si yow gëm naa ne yow amoo ay mbokk benn yow amoo ay kilifa yow ku nu yàpp ñun Sénégal nga yow yaa ngi Amérique boo amee sa problème doo dem ci Joe den nga wax ko sa problème yow ñun boobu ba léegi benn benn benn wax la ñuy dégg de dégguñu waxi naw fees nu ba xam takk na la xamuñu ba xam tëkku la ñun ay vidéo lañ gis ak i audio nangam sàngam ak bi ngeen nekkee ci oto beneen bi man la ma ci jaaxal leen la nee nga moom takk rek la gisoon léegi yow bi mu lay takk ana sa baay ana sa yaay seen rek sa baay fu nekkoon xanaa jigéen kay boo koy takk baayam day nungu yaayam nangu ay ndayam ñëw ay nijaayam ñëw ñëpp ñëw ca takk ga ngeen teg pété koolaa bi teg gure gi teg ji njeer ji ya cay ndem ak yëpp yéen a xam mais daal ñu maye la nangam sàngam dégg naa nga sawaay ñëw na bi sawaay ñëwee dégg naa wax na la ni la foog ñu siim mari ngaañi gi nga ni ko déedéet ndax affaire yi dégg naa boo ciy dem boo ko mës a def boo ciy def day metti dégalage <laughs> wax boobu jubul de beneen bi am nga leneen loo waxaat nga ne noo fees dafa yor samay vidéo maanaam yow dafa am koo nekkalan def taati niin wala am daam ko la jàpp def la def la vidéo taati niin yóbbu ko yónnee vidéo bi noo fees wala lan noo fees moom manqué wul manqué goo xam si yàgg sa jabar ngeen def taati niin bu dee jabaram nga sax laay wax ngeen def taati niin muy vidéo noonu loolu moom loolu moom benn borom kër xanaa ñi mu ko yàgg sa jabar ngeen ñuy vidéo te ci téléphone damaa jàpp ne yow dañ laa fekk nga def dungu àllam neen su mi ko ba ne dungu sa calawa ji lang sa petax yi ba ci yombal xaamal ak bar nga dem jiñ ko noo fees nangam sangam ndax ñun boobu ba léegi benn version la ñuy diglu soxna si bu nu yàpp ñun ay sénégalais lañu ñun duñu ay dof ay maganu yor de barke bi mal xaam lakk ba ñu saa su waxee danaa ko jàkk déglu ko su paree ñu jàngat yow nga ne dan laa bëggoon a takk tey nga sëy si tey ñu ñu ñu ñu la tey nga sëy si tey ñu sabañ la ko tey mu xaj mbete kuy ñaan ay comité mbokk yow moo kilifa si nga jigéen day wuti kilifa jigéen day dem nga am kilifa jigéen saa suñ lay mayee bu la nit lee gis la bëgg lu ci sa xalaat yow boo bëggee ba pare ndax lislaam dañu bala ngaa may nit laajal ñaari way ñaar ñi nga xam ne dañoo bëggante ba xam bëggante nañ ba pare léegi beneen bi bu lool jàllee nga ni ko sama ngi nii sa baay a ngi nii présenté sa ndey ak sa baay ba pare mais yow dem ñu maye la ci àll bi nga am sa problème dugg ci internet bi naam wajajajajajajaja mel ni ko wann kaan yi may nu waay bu nu yàpp boo amee sa problème nga seere ko amaama yaabul ca beneen bi man li ma jaaxal leen la man lan moo tax Sénégal sutura amatu fi nañuy sutural sunu jabar yi benn nañuy sutural sunu borom kër yi barke bi mal xaamal ak góor ñi nañuy sutural jigéen ñi jigéen ñi nañuy suturaal góor ñi mais sëy yëpp léegi ci internet bi la leen di weer ci bi lañ ko réglé yow ba nga koy takk lay takk ñun yëgunu ba ngeen nekkee ca néeg ba de sangu ñun yëgunu ba ngeen nekkee seen salda de bain ñun yëgunu xëy xëy problème am rek nga ni jaba ci internet naa ko may dimbali wuy sama ndey wuy yaa yooyu nangam sangam daa yor samay vidéo dina ko dugal naa ko pelant yow xanaa dan laa summi bang ne dungu moo tax nga bañ ñu pelant la xam lan laa lay wax demal nga wuti ay kilifa demal ci say mbokk nit koo mën a doon ci àdduna barke we mal xiyaama lakk bar bis boo ba wàccee sab ànd ànd boo dem fekk fa borom mu toog man awma lu may wax ak naw fees ndax dégg gu ma waxam mais yow mi lay waxal yow amoo kilifa gauche amoo kilifa droite amoo kilifa ci kaw amoo kilifa ci suuf amoo kilifa fenn yow yow ko la gis <laughs> man bi ma déggee takk gi sama xol bi daa see dugg yi ma fan ni dëgg la man man mbëkk faal sa xaw naa ciy dugg ci internet bi dul looy dul yu métti naan nangam sangam déglu sa jëkkër nangam nekkata man li may doon baraj baraj di wax yëpp ay fen ci laa doon dox yow suyu fen la mayu fen suyu fen suyu say mbokk bañ see bokk barke bi mal xeama la kabar ay fen a koy tasaat lu fen defar rek fen tasaat ko dëgg moo fi nekk demal nga wuti kilifa beneen bi fu ma la déggaate ci internet bi ngay labaj labaj passe la direct ñu fekk la Amérique ca bay doon laa jëm barke bi mal xaamal akbar bu ñu fontoo Amérique lan la maye mu la senegal mu xàcc wal na yàlla def ci réew mi jàmm waa bay nu kum ci yéen xurujukum guppoo gupp gupp faadaa gupp laa mañ gupp lëfër bu ngeen di doxaanante kenn du ko yëg buñ leen takkee ca biir néeg ba bëri bëri ragaj ragaj ja kenn du ko yëg bànneexu ga kenn du ko yëg mais problème boo amee ngeen commencé génn ci internet bi boo mën kilifa lii lépp doo ko def yaa ko yóbbu sa bopp dama nga wuti kilifa fonkal sa baay ak sa ndey acca ñaan comm wuti sa ndey ak sa baay ba ma déggaan nga wax fi rek ñaan ay nangam sanga pelent yaag sa pelent nag yéen a xam yal yàlla may jàmm ñun ñun ci jàmm rek ci la ñuy dox barki ba mal xaamal ak kabar wasalaam